saxalul li nga xam ne mooy fondement bi mu tege te mooy daq bokkaale waaye saxal wéetal suñu borom tabaraka wa taala ànd ak nag pas-pas bu dogu ci li nga xam ne moom la laa ilaha illallah ëmb ànd ak di ko jëfee itam ci loolu ci la jullit bi nekk jullit dëgg ci lay bokke ci ñoñ laa ilaha illallah ñi nga xam ne suñu borom melal na leen ne ñooñu ñoo gëm yàlla dëgg ulaika humul muminuuna xaqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim fas de am na kenn ku yeyoo jaamu dul suñu borom tabaraka wa taala loolu moo gën a nekk neen luy nekk neen moo gën a nekk ak tooñ ci lépp lu nekk tooñ ndax tooñ mooy teg mbir fudul barabam loolu mooy yamukaayu cànkute suñ boroom nee na amul ku gën a sànku koo xam ne mi ngi jaamu wala mi ngi ñaan keneen ku dul yàlla te kookee muy jaamu wala muy ñaan du ko wuyu mukk ca lam koy ñaan ba ba yow ma xiyaam di taxaw ndax sax dafa yëgul ne mi ngi koy ñaan wala sax même bu yëgoon ne mu ngi koy ñaan du ko mën a wuyu walaw sami'u mastajaabu lakum te nee na bu yowmal xiyaamee bañ dekkal jaam ñi kooku nit ki yaakaaroon di ko booleeg yàlla di ko ñaan kookee am noonam lay doon wa isa xusira annaas kaanu lahum aadaa wa kaanu bi ibadatihim kafirin te it jaamu gañ ko doon jaamu dafay wet ne moom kenn jaamu ko woon borom bi xam la ne zalika bi anna allaha huwa alxaq yàlla daal mooy dëgg mooy buur dëgg bi ñu war a jaamu wa anna ma yad'uuna min dunihi huwa albaatil leneen lu ñu jaam wala ñu koy ñaan te du moom neen la wa anna allaha huwa al aliyul kabir borom bi dellu wax ne di ko bokkaale ak dara loolu mooy tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi inna shirka la zulmun azim mbokki jullit yi laa ilaha illallah dafa am lu muy tegtale loo xam ne faw nit ki da koy dégg dafa am maanaa moo xam ne faw nit ki daf koy xam ndax kat boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ne wax kàddu gi rek di laa ilaha illallah te déggoo maanaa mi xamoo li muy wax lu mu wala xam nga ko waaye jëfewoo li mu laaj loola du tax nit ki jariñu du tax mu mucc ci mbugal bu ëllëgee borom bi nee na wala yamliku alladina yad'uuna min dunihi shafaa illa man shahida bilxaq wa hum ya'lamuun nee na leneen li ñuy jaamu wala ñu di ko ñaan di ko booleeg yàlla mënu la ramm kenn ki mën a yeyoo am ramm kay mooy ki seede kaddu dëgg muy laa ilaha illallah ànd ak mu xam ko wahum yaalamuun ndax seede kenn du seede loo xamul wa ma shahidna illa bi ma alimna te gannaaw da nga naan ashhadu ashhadu an laa ilaha illallah yaa ngi seede seede nag dañ caa sart li ngay seede nga xam ko bu fekkente ne la ngay seede xamoo ko loolu du nekk seede seede yi dañ cay soxla la ngay seede nga dëggu ca dañ cay soxla itam la ngay seede nga gëm ko di ko jëfe loolu ci la ñuy xam ne kon du mën a ñàkk faw ñu xam li kàddu googu di tegtale bu ñu ko xamee ñu jëfe ko bu ñu ko jëfe itam ñu dëggu ci ndax ci xam gi ci la jaam bi di mucc ci doxaliinu nasaraan yi nga xam ne ñoom dañuy làmbatu di jaamoo yàlla ci lu ñu xamut waaye ci jëfe gi ci lay mucc ci doxaliinu yahood yi nga xam ne ñoom xam nañu waaye dañoo jëfewut ci dëggu ci lay mucc ci doxaleenu naafiq yi nga xam ne dañuy feeñal ci bitti lu bokkul ak la ne ca seen biir xol bu muccee ci ñett yooyu yépp nag ci lay bokke min ahli sirati llahi almustaqim ci ñi tegu ci sirat almustaqim ñi nga xam ne suñu borom defal na leen xéewal bokkuñu ci ñi mu mere bokkuñu ci ñi sànk bokki julit yi ñu xam ne kon la ilaha illa allah du mën a jariñ lu dul ki xam li muy teg xam li muy dàq ak li muy saxal daa am lu mu fiy jële am lu muy indi ànd ak mu fas loola ci xolam gëm ko ànd ak di ko jëfe ku ko wax di ko jëfe ci lu feeñ waaye nag fasu ko ci xolam kooku mooy naafiq ku koy wax di ko jëfe di jëfe lu wuuteeg moom ci xeeti bokkaale di jël li xoo warul a jox suñu borom di ko jox meneen bindeef kooka mooy kaafir kooka mooy ki wedd yàlla naka noonu itam koo xam ne wax na ko gannaaw ba murtat bàyyi lislaam te mooy mu weddi dara ci la li laa ilaha illallah laaj ak lenn ci ay aqam koogee wax laa ilaha illallah bu ko doon wax junni yoon lu tax mu amal ko jëriñ naka noonu kuy wax laa ilaha illallah waaye mu ngi jël ay xeeti jaamu yàlla di ko jëme ci keneen ku dul yàlla lu mel ne ñaan muy ñaan ku yàlla lu mel ne rendi muy rendi rendi goo xam ne yàlla taxul ay xëram ak ay xàmb ak ay rab ak yooyu moo tax muy rendi wala muy nisar nisar boo xam ne yàlla taxul wala muy koo keneen ku dul yàlla wala muy wàkkiirlu ci ku dul yàlla wala muy yaakaar ku dul yàlla wala muy ragal wala muy sopp ku dul suñu borom tabaraka wa taala kookee bu ko booleeg di wax laa ilaha illallah itam ma ngay jëf safaanu laa ilaha illallah laa ilaha illallah maanaam mooy amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg كدون سني برام تبارك وتعالى موم ركنا ملاك بوكوتك يلنت بوكوتك كن بوكوتك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سني برام لنا مسوما يبال أب يلنت لجيت يلنت صلى الله عليه وآله وسلم لدول وحي ناكو نه نخمل نتنا نه لا إله إلا أنا كن دبور بيو جام كدول من يلنا كنك فاعبدون جابو borom bi del wax ne wala qad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudu llah wajtanibu taaxut xeet wu nekk yabal naa ci ñoom ab yonent yonent ba lu muy wax mooy jaamu leen yàlla te wattandiku leneen lu ñuy jaamu te du yàlla te loola mooy taaxut looloo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba mu waxee yéefari makkay ne leen wax leen laa ilaha illa allah ñoom dégg giñ dégg baat bi moo tax lañ ko tontu mooy aja'ala al alihata ilahan wahda ñi ne moom yàlla yu bari yii da koo bëgg a def benn ne yàlla yépp tekkiwuñu dara benn yàlla rek a fi ne ndax booba kaaba ga lu ëpp juróom benn fukki yàlla ak lu topp defar nañ ko teg ko ci kaw kaaba yàlla ju ne ñu ne mooy def lii kii mooy andi wërsëg kii mooy fay faj feebar kii mooy daq jàngoro yooyu yépp ñu teg ko fa di ko ñaan bi yonente bi sallallahu alayhi wax leen laa ilaha illallah ñu ne ajaala al alihata ilahan wahida moom daa bëgg ne yàlla yi benn la inna haasa la sayun ojab ñu ne lii de mbir mu yéeme la maa sami'na bi haasa fi abaina al awwali ñu ne lii dañu mësul ko dégg moo tax nitu hóot ñoom itam waxoon nañ seenub yonent ba mu leen ne wax leen laa ilaha illallah ñu ne ko ajitanaa li naabudallaha waxda waaw yow da nga fee dikk bëgg nu jaamu yàlla moom rek wa nazara maa kaana yaabudu abaauna nu bàyyi lu seen bàyyi daan jaamu ah loolu de nun duñ ci ànd te kat laa ilaha illallah ci la leen woo waaye ñun dañoo dégg maanaam xam nañ ne suñ ko waxee te gëm ko mbooleem lu ñu doon jaamu doon yaakaar te yàlla dañ koy war a bàyyi fii nag dégg maanaam bi day des day gis xam ne wax laa ilaha illallah du ko dee dem di sangu ci ay xàmb du ko dee dem di ren di ren di boo xam ne yàlla taxut dañ koy wax ne ren di lal yi lu mel nangam yooyu yëpp te ngi koy boole di wax laa ilaha illallah yéefari màkk yi nag boo gisee laa ilaha illallah diisoon ci ñoom dañoo dégg maanaam yi xam nañ la mu leen di jëlee te bëgguñ caa jóge moo tax nanguwuñ koo wax waaye fii tam jàpp naa ne ñu bari bu ñu leen leeraloon laa ilaha illallah fi mu leen di jëlee te bëgguñ faa jëlee kon duutuñu wax laa ilaha illallah waaye dañoo jàppale ne mën naa ànd ndax ku màgg ak lu mu rëy rëy daraja ñu la jàppee ne mën nga koo booleek yàlla di jaamu si borom ne mam malaayika yi ak yonent yi ku leen boole leen ak yàlla di jaamu kookee delloo na la ci kéefa ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ونكا مونا كل بك جابلو كو خامن جيغيول ملائكة جيغيول أب يونانت te ñooñu ñoo ñi gën a ci bindee fii te borom bi nee na li ñuy màgg màgg màgg ku leen di yaakaar wala nga di leen ñaan wala loo war defal suñu borom nga di leen ko defal na nga xam ne bil kufri is antum muslimun dikk na ci alquranul karim ay nusuus yu bari yoo xam ne day leeral di firi kàddug laa ilaha illa allah di leeral maanaam bokk na ci suñ borom di wax ne wa ilahukum ilahun waxid wa ilahukum ilahun waxid laa ilaha illa hu arrahmanu rahim na ngeen xam ne benn buur ngeen am amul ab soin amul ku topp ci moom amul ku muy dimbandikoo amul kenn ku mu doxale su seen digganteeg moom xanaa yonent bu leen di jottali amma jaamu gi ak yaakaar gi ak ñaan gi moom kooku seen boroom ngeen ko setal boroom bi dal wax ne wa ma umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diin xunafaa digaluñu leen lu muy ngeen jaamu yàlla te jaamu yàlla nag dara ngeen sellalal ko diine bu leen ca rax dara te nag ngeen nekk ñu sori bokkaale borom bi dal wax ci ibrahim ne dafa waxoon baayam ak i nitam te loolu mooy li gën a bari ci luy sànk nit mooy la nga fekk baax la nga fekk sa bàyyi nekk ca say bokk nekk ca pour nga tàggali koog loola dafa jafe waal xoola ibrahima lim wax wa is qaala ibrahimu li abihi wa xawmihi innani baraaun mimma taabudun baraaun mimma taabudun dañ naa basat wecc ci li ngeen di jaamu illa allazi fatarani lu dul yàlla mi ma bind fa innahu sa yahdiin moom rek moo may wax jaaral fii waaye du ma naan lii laa fekk sama bàyyi wala lii laa fekk samay maam wala lii laa fekk nit ñi yàlla mi ma bind daal lay déglu moo may wax ni ma ko war a jaamu mu ne kàddu googu nag Ibrahima da koo bàyyi ci ak njabootam wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibihi la allahum yarjaun ñu di ko dé di ko dénkante moo tax kuy bëgg a faatu ci ay doomam da ngay dajale seen njaboot ne leen maa taabuduuna min baadi bu ma fi jógee lu ngeen di jaam qaalu naabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa isxaqa ilahan waxida wa nahnu lahu muslimun kenn ku ci ne bala ngaa da ngay dalal sa xel ci seen njaboot ne boo fi jógee dinañ wéy ci tawxid boobu moo tax nga gis Yuusufa naan wattabaatu millata abai wattabaatu millata abai man day topp naa diina ja sama bàyye nekkoon ndax Yuusufa yonent la baayam yonent la maamam yonent la maamaatam sax yonent la ndax Yuusufa Yaxooba ko jur te Yaxooba Isxaaqa ko te ishaqa ibrahima ko jur moo tax yusuf moom la geppam ay yonent moo mune mu millata Abai, ibrahima wa ismaila wa ishaq neena na ñooña top topp seenu kon duma bok ci ñi bokal ben yon borom bi wax ne di wax ci ki nga xamne mo gem yalla te suñu borom di net li mbiram ci sourate yasin ba ko nit ñi di yab ci wetal gem wetal yalla mune wama li la abudu allati si wa ilayhi turjaun walu te ma jaamu ki nga xam ne moo ma bind te ci moom lay dellu a attaqisu min dunihi aliha da ngeen a bëgg ma wut leneen lu ma koy booleel te in yuridini rahmaanu bi durrin laa tugni anni shafaatuhum shay'an wala yunqisun mu ne yàlla mi ma bind su ma bëggee teg lor yooyu ngeen naan naa ko ci boole duñ ma mën a tiñu duñ ma mën a xettali duñ ma mën a teggil lor joo kon nag su ma jëlee yàlla di ko boole kenn inni isan la fi dalaalin mubiin inni isan la fi dalaalin mubiin kon day damay nekk ci cànkute bu rëy rëy ba mu wéetee ca tawxiid boobu bañ lay ko ca dafa wax ne ba mu faatoo ba suñu borom tabaaraka wa taala jégal ko dafa wax ne ak neexoon nit ñi sama nit ñi ma bàyyi gannaaw xam li ma nekk yaa lay tax fa mi yaalamoona bi maa xabaral bi maa xabaral lii rabbi wa jaalani min al mukramin yaa layta xaw mi yaalamuun ba mu faatoo loolu la wax yaa layta xaw mi yaalamuun ak a neexoon li ma nekk ci xéewal ñi ma bàyyi gannaaw xam ko ndax ñu mën dugg ci lii ma nekk borom bi dellu wax ne qul inni umirtu an abuda allaha muxlisan lahu diin wa umirtu li an akuna awwal al muslimin mu ne bi sallallahu wa sallam waxal ne man de dañ ma digal ma jaamu yàlla sellalal ko diine dañ maa digal itam ma doon ci jiit ci jullit ñi awwal al muslimin waxal ne inni axaafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim damay doon doon yonent maa ngi ragal ne bu ma moyee yàlla danaa dajeg mbugal mu mag xul allaha abud muxlisan lahu diini xul allah abud la lahu diini buñ la laajee daal neel man yàlla rek lay jaam gis nga ni mu jiital allah bi ngir xasan qulillaha abudu la lahu diini borom bi daan wax ci xikaaya ci mumine aali firawna mbooloom firawna ma kasa nekkoon te gëm yakkatumu imaanahu di nëbb ngëmam di yedd nit ñi leen yaa xaw mi maa li ad'ukum ila najaati wa tad'uunani ila naar wala sama bokk yi lu tax man fu ma toll di leen woo bëgg ngeen mucc ci safara yéen ngeen di ma jëmee safara mel nit ñi dañ ne ko ah ñun kat woowu leen jëlum safara ndax gisuñu safara mu ne tad'uuna li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmu ku lay weddiloo yàlla wala ku lay bokkaaleloo ak yàlla xamal ne mi ngi lay jëmee safara wa annama rabbana ila allah te ñun ñëpp ci yàlla la ñuy dellu wa anna al musrifina hum ashabu nnaar ñi nga xam ne ëppal nañ ci mooy yàlla def ay bakkaar ñooñ ñooy waa safara mbokki julli aay yi bari na lool yoo xam ne day leeral maanaa laa ilaha illa allah li nga xam ne li muy tekki mooy dañ ba sat wecc noonu ko ibrahima wax ne inna nii baraun mimma taabudun dañ ba sat wecc ci mbooleem lu ñuy jaamu telu Lipun mbooleem lu ñuy yaakaar am rab mu di ko dend ak yàlla lépp nga denca doonte da ngaa fekk saw askan nekk ca loolu dina metti lool nit ki wuuteeg aw askanam rawatina ay bokkam wuuteeg ñoom day jafe lool moo tax suñu borom ne roy leen ko ci ibrahima laqad kaana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wala sina maa lu ñu rey ci moom is qaalu li qawmihim inna buraau minkum wa mimma taabuduuna min duunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adaawatu wal bagdaau abadan kañ la ñuy àndaat hatta tuminu billahi waxda lu dul ngeen dem ba rek ci laa a àndaat ak yéen al adaawatu wal moom la nit ragal ba tax lum fu mu leen nar a fekk rek ñu far ànd ak nit ca la ñu ne ngir ragal al adaawa ku leen noonu wal bagdaaw la ku leen bañ te Ibrahima dafa ne bokkam yi wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal bagdaau abadan hatta tuminu billahi wahda borom bi nag ne loolu roy leen ko ci Ibrahima alayhi salaam xam nga loolu soo ko waxee nit ñi dañ naan ah Ibrahima kon xanaa dafa taral diine borom bi ne inna Ibrahima la awwaahun xaliim nee na ànd ak waxam ju dëgër yooyu de teewul Ibrahima ku lewet la ku lewet la waaye dëgg nag moom moo amul maslaa dëgg ndax boo ko maslaa itam bis bu résultat ba teewee ah bu boobaa dana metti lool. kon nag mbokk yi aay leeral na laa ilaha illa allah yi nga xam ne li muy tekki mooy wéetal yàlla loolu mooy ak njub mooy diine yi dëgg xam nga ne tur diine dafa bari waaye diine yi dëgg mooy ci suñu borom tabaraka wa taala yónni yonent yi huwa allasi arsala rasulahu bil huda wa diini l li yuzhirahu ala diini kulli mooy diine ji nga xam ne itam moo tax mu wàcc téere yi ammaa nit ki di wax laa ilaha illa allah te xamul lu muy tekki jëfewul li mu laaj léeg-léeg sax mu boole kook di jëfe lu wuuteeg laa ilaha illallah te mooy di jël cëri suñu boroom ci wàllu ñaan wàllu ragal wàllu nisar wàllu mboolem xeeti jaamu yàlla yi mu koy jëme ci keneen ku dul suñu borom tabaraka wa taala mu xam ne ànd ak wax ga muy wax laa ilaha illallah di def lee loolu du ko jariñ dara bu booba kon daal tënk bi mooy shahadatu an laa ilaha la muy mooy dañ ci mbooleem lu ñuy jaamu te du yàlla ànd ak jublu ci suñu borom tabaraka wa taala di ko jaamu jaamu ànd ak toroxlu jaamu ànd ak xemmem la nekk fa moom ci xéewal jaamu gu ànd ak wàkkirlu ci moom jaamu ànd ak di ko ñaan ki nga xam ne laa ilaha illallah moom la gëm te moom lay wax te mu dëggu ci moom kooku du ñaan ku dul yàlla du xettaliku ci ku dul yàlla du wàkkirlu ci ku dul yàlla du yaakaar ku dul yàlla du rendil ku dul yàlla du jël mbooleem genn xeetu jaamu yàlla di ko jëmee ci keneen ku dul yàlla mbooleem lu ñuy jaamu te yàlla yi da koy parce que laa ilaha illallah da ngay dafa ànd ak gëm ak wedd waaye nit ñi dañ naan la gëmal li gëm te bàyyi ñi ci des ñu gëm li ñu gëm déedéet borom bi dafa ne waman yakfur bi taaxoot yakfur doo ne wa yumin billah da ngay weddi lii gëm lii mi ngi mel ne ab tool rek il faut nga weddi ngeer ma fa nekk ñax ba ruuj leen bañ set ba jële leen fa doog a ji waaye duñ la jël li ji rek te bàyyi fi ngeer beeg ñoom fi nga leen fekk bàyyi leen fi déedéet nit ñi nag dañ naan la gëmal li nga gëm te li fekkoon ci gisaat bi bàyyi ko fi rek bàyyi fi lépp rek lu way gëm baax na déedéet boroom tool bi du dem tool bëgg a ruuj ñu ne ko ngeer bi bàyyi ko fi ëkk yi bàyyi ko fi ñax mi bàyyi ko fi te ji li ngay ji rek boo ko fa bàyyee ji ñi ma du baax il fa mu dindi la fa nekkoon bu pare ñu mel ne yi tam boo ko bëggee ji boo ko bëggee duy duñ fekk ndaali am ndox mu walax njaar ñu ne la duyal rek te bàyyi ndaali noonu da nga koy ngecc ba mu set raxas ko ba mu set duy su ko defee ndox ma doog a sell yow itam soxal yi nga ci gëmoon te du yàlla yépp da ko koy dindi ba mu set lool laa ilaha bi loolu lay tekki mooy ruuj bi illallah mooy njimi boo dee laa ilaha ruuj nga ba sa tool set wecc wecc wecc illallah nga jifa nag suñu borom tabaraka wa taala moom la borom bi ne kalimatan tayiba gis nga tayiba la dara raxu ca ka sajaratin tayiba day mel la garab gu baax góoj asluha saabit wa faruha fi sama kon nag mbokk yi ñu xam ne kon laa ilaha illallah dafa am fu muy jële nit nun niñ ko yombale nekk ci ba nëpp maa nga ca jibar ya maa nga ca seetkat ya maa nga ca gisaarekat ya maa nga ca tënikat ya te teewul man maa ngi wax laa ilaha illallah abdulillah loolu bu doon loolu yéefari màkk yi mën a doon di jullit bu leen yonente bi nangu loon loolu ne leen wax leen laa ilaha illallah waaye mën ngeen di dem ci laataak osaak seen xarit yëpp yëpp mën ngeen ko cee boole moo tax ñoom loolu lañ ko proposé woon dañ ne ko naan dañoo nga bàyyi na ci li ñu nekk boo dee julli ñëw ànd ak yow julli bu ñu dee jaamu suñu xel mi nga ñëw ànd ci تلا قل يا أيها الكافرون واتي لا أعبد ما تعبدون ين ولا أنتم عابدون ما أعبد ين ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد xam ngeen lu xewa lakum diinukum waliya diin nekk leen ci li ngeen nekkoon gannaaw nagu leen ko bàyyi te bàyyi ba sama diine waaye mënta ànd nag ñaar yi mënta ànd benn kay da ngay des ci aaday cosaan yi maam yi ne man loolu laa gëm waaye loolu laa ab jullit laa déedéet jullit moom dafa am ay melokaanam waaye bëgg nekk ci loola deex yaa ngay tuuru yaa ngay xàmb yaa ngay takki xaaw yaa ngay takki béjjën ba noppi jàkka jee bu ñu fa demee nga ne yaa nga fay kàbbar di wax laa ilaha illallah ñaar yooyu mënuñoo ànd borom bi tabaaraka wa taala nanguwul lool moom dangay ngay bàyyi lale laa ilaha da ngay bàyyi leneen lu ñu jaamu ca du yàlla dooga nag mën a wéetal suñu borom tabaaraka wa taala te itam ki wéetal suñu borom du ñaan ku dul yàlla du dimbandikoo ku dul yàlla saa booy julli xamal ne yaa ngi signé accord boo xam ne ndax matal nga ko mbir nee nga yàlla iyaaka yow rek rek rek mu ne ah nga ne ko naa abudulaay jàmm del siwaat ne ko wa iyaaka yow rek rek rek yow yàlla nastainu lay dimbandikoo waaw kon boo fi jógee di jaamani dañu yónni rek dudul yàlla wala ngay dimbandikoo leneen lu dul yàlla ah te contrat boobu bés bu set nga répété ko fukki yoon ak juróom-benn ci julli farata yi kon yow kat bu boobaa dëggaloo li nga diggante war ak suñu borom tabaraka wa taala kon nag mbokk yi kàddu gu diis la goo xam ne jullit wër te dañ di ko nafar ndax kat ku dugg ci bàmmeel moom lañ lay laaj bu xasee wér rek sa lépp baax laa ilaha illa boo duggee ci bàmmee ñu laaj la ko nga tontu ko tontu bu wér li dess lépp yaa ngi ci xew waye su fekkente ne wérut nak te boko weral lu won fi nak mënoo koo wéral fële bu boba nak la ca top lépp dara du dutul baax yàlla nu yàlla boole ci ahlul la ilaha illa allah wa tawaffana muslimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain